asalaamaaleykum ami internet Kébémer TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak kóolute gi ngeen ànd ak Kébémer TV première chaîne digitale du département dal leen ak jàmm ci actu navétane actu navétane tey dañ koy doore ak final bu amoon ca le village le 24 à partir de 16h la ñuy siffler coup d'envoi bi ki amaloon tournoi yooyu nga xam ne moo ko doon organisé di wuyu ci turu maam Abdou Sow acteur de développement local socio culturel maam Abdou Sow nag nekk homme de développement bëgg lool sport sport final bi nak ñi ko euh, sifflé coup d'envoi bi à partir de 17h ci lañu football ci digënté ASC référence ASC Talibou Bess waye nak ndam demul ndam dikkul bi ñu footballee 90 minutes de jeu ñu def 0-0 ci lañu dem tiro bi ASC référence daal di koy gagner daal di jël coupe bi ñu déglu Abdou Sow mi nga xamné ne moom moo organisé woon nawetaan yi. macha allah ñëpp ñu du euh, côté de aussi, euh, le parrain, donc Amadou, euh, le responsable de l'école de l'OVU. En fait, il n'est pas là. Et de retour, donc voilà, à sa place, donc, elle a envoyé sa, sœur, soeur, donc Donc c'est la marraine, donc, de ce côté-là. Et après loolu lépp damay jaajëfalaat groupe écologue de Roboul lu ko dalee ci côté bar restauration lu ko dalee ci ñëpp ñi nga xamante ne si dañu concentré wu ci écologie bu baax a baax euh, rawatina ñi nga xamante ne si fàttewuma daanaka euh, ñi nga ne ñëwuñu euh, di ñoom biiram Mbaye Ndiaye euh, Abdoulaye Ba ñoom ñoom ñëpp ñu ngi fii Yoro Daouda Diop aussi donc euh, sans oublier aussi donc c' est Laye Mbarou Ba euh, après loolu di jaajëfalaat aussi présence effective de chef de village de notre village avec à sa côté donc voilà vieux pâté. il y a aussi Sow il y moom Sène et euh, di ci yokk aussi ñeneen ñi nga xamante ne si ñi nekk si ginnaaw gisuma lépp mais yéen ñëpp ñu ngi si biir leneen li ma ciy dolliwaat mooy sama jigéen ñi nga xamante ne si nekk si ginnaaw ki ne fàttewuma ko parce que aussi que ne moom tamit def na ci benn jéego bu nga xamante ne si euh, xaaruma ko ci woon sax mais aussi que ne ñëwoon ñëwaale indaale. donc bu ngeen gisee tamit cadre de cocktail bi nga xam bi nekkoon si ginnaaw moom moo ko produit moom moo ko si jàppale ànd ak ñoom maire ànd ak ñoom euh, cuisinier de l'école aussi donc voilà et tout euh, ginnaaw loolu lépp di rafetlu aussi teewaayu Kébémer TV donc euh, c'est grâce à eux aussi que balaa que euh, dañuy def aussi seen interview seen euh, direct déjà match bi donc passé woon na en direct malheureusement début coup d'envoi bi ñoom ñëpp ñu fi woon mais à la fin donc voilà juste début deuxième mi-temps bi ñoom ñu lañu la ñu commencé dugal seen direct bi donc euh, voilà et que lii laa doon ñaan yéen ñëpp donc euh, muy ASC Bene Tally muy ASC référence lépp li nga xamante ne si luñ fi organisé yéen ngeen bañ cee féete ginnaaw ngeen taxaw ni jolo ngeen ñëw bokk kaf foo ree ci liir bi ba léegi lii laa leen doon wax man ci lii laay dox ku ma ci fekk si wul xamal ni ci lii laay dox ku ma ci fekk si di ma ci fekk donc ñu dem ànd ñu dem ba yàlla def jàmm donc yokkaat bu baax a baax a baax a baax a baax euh, di euh, gërëmaat encore euh, ñeneen capitaine yi donc ah, mu fa teewaloon na marraine bi moom tamit ak euh, invité yi nga xam ne si ñoom ñëpp wuyu si nan Abdou en masse di jaajëfal nee na mi ngi sant ak gërëm staf bi nga xam ne si ku ci mel ne seen Sène ne Ba ak ses petites sœurs Ndeye Guèye Malick Fall Abdoulaye Ba Daouda Diop Yoro Ba Birane biram mbay Ndiaye donc mu nekkoon na staff bi nga xam ne si ñoom ñoo taxaw woon ci liggéey bi waaye tamit ñu ràññee fa ci teewaayu maître Ousmane Sow chef de village Lompoul village ñi ko moo teewoon ca bés ba ànd ko ak ay euh, am di jàmmam ku ci mel ne Pathé Diop ak Mor Sène ak Mas Sow et son petit frère mu nekk. ñu li ñu conseillé ànd ak ñun dañ leen ñaanal vraiment. wax dëgg yàlla ñu ànd ko ak maam Abdou ak Lay Sow capitaine bi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal franchement Joola bàyyi ñu kenn maam Abdou wax na ma organisation bi ñu bokk liggéey te na bu fekkoon ñaaw naka nit ay may ak ay pare du ci am ñu ñëw taxaw mais booba tey dara ñaaw seen ku ko am franchement ay jàmbaar ngeen yéen góor ñi sama góor ñi ay jàmbaar ngeen parce que jigéen dafa naqare nekkal surtout man dama naqar dara ngeen nekk man 21 22 ans te dara ñaawul yàlla na la yàlla defal jàmm lépp yéen la kontaan naa ñu toog naa di faatu ya, sabaka makan dengan anda vraiment

tournoi yi ci kanamu ay Tali bu bees mu nekk loo xam ne si ni waa dëkk bi ñëpp rafetlu nañ ko doon ay organisation boo xam si ñëpp ñi koy ñaanal euh, Abdou saw mu acteur de développement local waaye tamit di tàllal loxo autorité yi ñu jàppale ko ci liggéey bu am solo bi nga xam si koy def village ak li di jàppale ndaw ñi ci lépp loo xam si ci sport culture ak lu mu mënti donc moolu moo jotoon na xew ca People Village di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak kóolute gi ngeen ànd ak Kébémer TV.